Sud FM xibaar yi. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi euh, Sénégal nekkaat yi tiis ndax euh, fi mu ne nii daal dinañuy am fukkeelu nit ak euh, juróom-ñeent bi nga xamante ne faatu na ci coronavirus bi mu di benn soxna su toll ci juróom fukki at. ak ñett faatoo ci hôpital Aristide Dantec tey jii suba am na keneen ku ñu tàggee woon mu doon fukkeel beeg juróom ñett démb ñaar tey ñaar kon ñeent ci diggante ñaari bis euh, bilan bi euh, ñu gis ne kon mi ngi gën di yokk ci bisu tey jii ñu ngi woon ci juróom-ñaar fukk ak juróomi cas yu bees juróom yoo xamante ne kenn xamul fu ñu ko jëlee déglu woon nañ ci docteur Aloyse Waly Diouf ñi nga xamante ne ñoom ñooy personnes âgées di mag ñi euh, fi ne nii nekk ci ak tiit ndax seetu nañu ne ñi ciy faatu boobaak léegi seen i at dafa xaw a daal di kawe file ak talaata ñuy xaarandi président Macky Sall kon yëkkati kàddu ci ni ñuy yoree Euh, xeex bi ci wàllu euh, coronavirus bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay jàngalekat euh, nekkat président Sall daal di wax ci ay matuwaay yi nga xamante ne moom la ñu war a jël ngir waajal ubbite l'école bi nga xamante ne dañu ko bëgg jàppkat ci ndoxteel gi ci ñaari fan ci weexu juin ci jamono boobu kuréel gi ëmb éditeur de presse yi nee na Macky Sall génne itam. li nga xamante ne moom mooy arrêté buy leexal séddale gi jëm ci ndimbal li ñu jox. ñii di tasu kaayu xibaar yi mu di aide à la presse di ngeen ci déglu Mamadou Ibra Kane bu ñu paree itam euh, wax ci li nga xamante ne moom mooy xeex bi euh, li ñu ci seetlu mooy ne ñi di kilifa diine yi taxul ñu dugal leen ci noonu bu baax te xëy na bu ñu leen ci dugaloon bu baax euh, dina mën a am ay résultats Mamadou Yori Sall yëkkati woon ci kàddu ci seen émission objection ci kanam tuuti la ñu daal di leen koy faxam fàcceel Ndeye Khady Diop asalaamaaleykum mbokk yi am na soxna su faatu ci coronavirus bi tey jii mu di fukkeelu eh, nit ak eh, juróom-ñeent ba si eh, faatu mu ngi tolloon nag ci juróom fukki at ak ñett dëkk ca Sicap Liberté 3 mu ngi faatu kon tey ci dimanche ji. ca service accueil urgence bu hôpital Aristide Le euh, Dantec tey ci suba itam daal ñuy tàggee fukkeel ak juróom-ñett bi ci ki ci euh, génn euh, àdduna mu doon ku toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom ñu doon ko faj ca centre Como bu hôpital bu Fann ci bisu tey ji juróom ñaar fukki nit ak juróom Euh, gis nag ni ñi ngi ak jàngoro ji dolleeku ci li fi nekkoon euh, juróom ñi nag kenn xamul fu ñu ko jëlee ci ay leexal dañ ciy ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé ak action sociale. ci junni ak ñett téeméer fukk ak juróom fukk ak ñett test yi ñu def. juróom ñetti fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom ñaar fukki cas contact ak juróomi cas communautaire benn bi ci waagu ñaay benn bi ci yoof ñaar yi ci grand yoof benn bi ci Touba juróom-ñaar ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñaari cas yu sonn ñu ngi ci suñu service de réanimation yi hôpital Fann ñeenti cas hôpital principal ñaari cas hôpital régional Ziguinchor benn cas ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi des ci hôpital ci hôpitaux yi seen wërgu yaram seen yaram mu ngi am tan Sénégal am na tey fukk juróom-ñetteel yi cas de décès bi nga xam ne feebar bi moo ko indi muy benn góor bu am 75 ans dëkkoon ci parcelle Assainies ñàkk na bakkanam tey dimanche 10 mai 2020 ci fajar bi bi 6 heures 15 jotee ci centre Kouémo bu hôpital Fann ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy jaalee njabootam ci bésu tey dalee ko ci cas bi nga xam ne moom la ñu njëkk am Sénégal wàññi na junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeenti cas juróom benn téeméer ak juróom fukk ñetti wër nañ si fukk juróom ñett ñàkk si seen bakkan mu des ci suñu structure hospitalière yi junni ak ñeenti fukk ak junni ak ñeenti fukk ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu dolli di sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe Euh, jóge nañu kon ci fukk ak juróom-ñett yi si faatu dem ci fukk ak juróom-ñeent yi si faatu ak soxna si si ñàkk bakkanam kon euh, tey ji ci euh, bisu dimanche yi loolu tax na sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy mag ñi ragal lool ndax gis nañ ni ci ñi ëpp ci ñu ci faatu eh, seeni at dafa kawe ay mag lañu looloo tax ñoom ñu ci bari génnatuñu te itam la ñu digle ñu ngi koy sàmmonte ak moom dañ ci ànd ak Josette Kaly. Pa Diom ak mère Ndeye Sali ñoom ñaar ñëpp ay nittu troisième age lañu. maa ngi ci juróom-ñetti fukki at. 67 ans. bu coronavirus bi wéy di yokku ci ñi nga xamante ni ay nitu troisième âge lañu tax na ba ñoom tiitaange màggee la ñuy àndal looloo tax ba fu mu ne ni lépp ca kër ga lañ koy defee génn yi moom daanaka wàññi nañu ko bu baax a baax te dolli ci gën a ñoŋal lii di prévention bi. presque je ne sors dinaa génn surtout le matin comme ça. damay doxantu cinq à quatre kilomètres. je reviens sur la même et puis je man dama daan doxantu jaay am. ba feebar ñëw tey maa ngi toog sama kër. man dematuma fenn fenn laa demat damay instruction yi ñu ci wax daal su may génn dama koy ab strictement et puis si may revient si fais la même chose je lave les mains et puis le leer tànk yi day méttee métti ba doxal damay dox ba yàgg may toog damay moytu rek su ma xëyee raxas sama loxo moomam fekk ak serpe diw ca famille Ndiaye moom boroom kër gee feebar daanaka ay atan gi looloo tax seen yaay dafa gën a dëgëral fi mu ne nii saytu gi te du kenn ku nekk lay bàyyi fu ne nii nga laal paa bi rawatina sax ñii di ay doomam paa bi dafa feebaroon moom avant corona bi tàmbali te moom tamit nitu troisième âge moo tax suñu yaay xaw dëgëral mesure de prévention yu si côté am léegi boo génnee kër gi sax même si que ni boo njegsee da ngay raxasu mais moom moom mooy veiller si loolu noonu balaa ngay laal dara si kër gi wala ngay jege paa te bu dul lool tamit boo génnee tamit ba dellu si daf lay wax pour nga dem sangu boo paree nga jël yére yi nga génnaale woon nga dem weer ko si naaj bi ko léegi presque boo xoolee kenn laalatul paa bi moom mooy toppatoo paa bi mooy gérer paa bi def lépp parce que moom du sax génn non léegi moom mënatoo jóge si biti rek ñëw laal paa bi par rapport bu njëkk way ni nga daan ñëwee tooñ kafoo ak réew moom noonu. ñooñee di ay nitu troisième age ñenn si ñoom donte sax dañuy génn fu mu ne nii faaw ñu takk seen masque ak yore lii di gel antiseptique ña mënatul ñoom dem ak dikk saytu gi dañ koo gën a dëgëral ngir bañe ñu laale ak kenn ku nekk. ñuy xaarandi kon ci bisu talaata ji président Macky Sall génn wax ak askan bi euh, ci euh, vingt heures bu jotee euh, ci RTS ñu jàpp ne nag démb ci daje comité national bi xeex ak jàngoro ji am na ay matuwaay yu am solo yu ñu ca jël du ñàkk président Macky Sall ci loolu lay jëm waaye ñu ngi koy xaarandi itam ci mu wax ci yenn matuwaay li ñuy jël ngir mën a ubbiwaat l'école bi ci kaaraange syndicat bi di kuréel gi di ADEPT kon Alliance pour la défense de l'école publique et travailleur euh, ne kat mu wax ak nit ñi lu leer ndax euh, élèves yi mën a dem euh, jàngi te dara du leen ci fekk Cheikh Diop di secrétaire général bi ci micro Amadou Moustapha Dieng. le 16 mars Sénégal mu ngi amoon ñaar fukki cas ak juróom yu nekk sous traitement mu jàppoon ne dogalu tëj école yi moo gënoon ci jamono pour protéger population yi mais tey bu ñu xoolee Sénégal mu ngi ci presque junni cas yoo xam ne ñu ngi ci sous traitement donc xel dana man tey ci loolu naka nga mën a tëjee école yoo xam ne ci jamono boo xam ne ñaar fukki ak cas ak juróom la ñu am nga bokk tijjiwaat jamono boo xamante ne jege nañ junni kaa waaw ñu jàpp ne également ci décision boobu nga xam ne jël na ko muy tijjiwaat école yi am na ay mesures yu mu jël pour mën a assurer sécurité sécurité ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci école bi muy jàngalekat yi di ndongo yi également ay digge la muy digge yu bëri bu fekkee ne ñoom dañu continuer ci dogal bi ñu jël ne dañuy tijji école yi le 2 juin ñu leen di invité pour que aussi dogal bi ñuy jël mu nekk dogal boo xam ne dina am tuuti cohérence ndax xel dafa nanguwul nga da ngay tijji école yi ba pare tëj daara yi xel nanguwul nga tijji école yi te jàkka yi église yi xel nanguwul nga tijji école yi ba pare restriction yi nga xam ne moom nga def ci transport bi ak commerce yi levé woo kon ñu invité gouvernement bi mu xaar bu baax ci loolu bu fekkee ne dogalu tijji boobu euh, moom la ñu jël ba léegi di fàttali également ne état loi bi def ko obligé mu protéger ay liggéeykatam rawatina jàngalekat yi loolu nag bu fekkee ne moom matalu ko moom état bi moom gouvernement du Sénégal ëllëg lépp lu fi jàngalekat ci waxtu bi muy liggéey ci jamono ci barabu liggéeyukaay am dinañ jàpp ne état rek mooy responsable waaw xam nga déconfine euh, confinement moom bu ñu waxalee yàlla rek réew mu mel suñu réew mi amul ay moyens pour confiner ay population bu yàgg ay réew yu ndóol lañ même réew yi nga xam ne ñoom ay moyens dem nañ ba xam ne lii mënta wëy ñu ngi commencé war relancer seen économie kon Sénégal amul ay moyens nekk réew moo xam ne dafa ndool amul ay moyen di confiner ay population bu yàgg donc ñoom war nañu trouver ay ay solution pour que nit ñi war a mën dellu ci seen liggéey ak seen mais en même temps ils ont un impératif pour mën a aar askan wi ci jàngoro ji fi nekk léegi nag euh, ñun jàpp nañ ne si le 2 juin le président dina wax ay mesures yu leer yu dal xel jàpp nañ ne aussi du yem ci ay wax rek dana nekk loo xam ne jëf la wax ne buñ ci eggee ku nekk dana ci teg bëtam mu nekk lu dal suñu xel ñu mën a liggéey ci suñu teeyu bakkan parce que contrat bi ñu am ak Sénégal mooy euh, état du Sénégal mooy mais ñu xëy liggéey wàcc ñibbi suñu kër mais nag contrat bi bokku ci xëy liggéey dem jëlee fa jàngoro loolu du lu xel nangu te du nekk lu am xam ne aussi syndicat mën nañ ko nangu kuréel gi ëmb diffuseur ak éditeur de presse yi di SYDAP di euh, laaj nguur gi mu génne euh, benn arrêté de répartition buy wane ni ñu séddalee ndimbal li ñu jox euh, presse bi kii di Mamadou Ibra Kane mi ko jiite di wax ni daal Euh, taxawaayu ministre bi toppatoo wàllu culture ak communication euh, dalul seen xel moo tax ñu bëgg président Macky Sall jëlal boppam euh, dossier bi ngir ñu mu mën a sàmmoon teg ay engagement am yu mu diggante woon ak ëttu tasukaayu xibaar yi Mamadou Ibra Kane di président SYDAPS ci micro Amadou Moustapha Dieng. ministre de la culture et de la communication dafa séddale aide à la presse bu nga xam ne entreprise privée de presse yi ñoo ko moom dégg nga mu séddale ko à tort et donc loolu ñu ngi koy ñaaw ñu yaakaar ne xaalis donc publique fekkee dañ koy séddale dañu war a xam kan lañ ko séddale ak ñaata lañ ko jox pour ñu gën a dëgëral suñu démocratie dans la bonne gouvernance ñu xam ne xaalisoo réew mi kenn du ko pasar pasare mais ñu ngi ko jox ñoom ñoo ko yelloo maa ngi insister si benn point ñun non seulement en tant que citoyen mais également en tant que patronat de la presse ñu ngi continuer di exiger que mu am un arrêté de répartition pour que ñun euh, les professionnels également le citoyen sénégalais ñu xam xaalis bi nga xam ne dafa tokku un milliard quatre cent millions kan lañ ko jox et dans quelle proportion parce que am na ñu tiitaange ne que euh, que ministre bi ñi nga xam ne ñoo bokk te euh, dison disons politique ñoom la jox aide à la presse si ay proportion yi nga xam ne ñooñu euh, donc amuñu si droit Euh, am am ñu tiitange comme quoi euh, dafa favoriser certains organes de presse parce que dañu am une certaine disons proximité politique et ñetteel bi euh, mooy am na ay accusations sax aide à la presse moom fonds politique les servir au ministre de la culture et de la communication donc loolaa tax dinañ dellu ci président de la république pour ñaan ko lépp jaar ci yoon pour ñu mën a respecter la loi au Sénégal ñun waxuñu suñu entreprise de presse yi ñu bañ a jël chèque dégg nga euh, mun nañu jël seen chèque utiliser ko nu mu leen ko neexee parce que kooku euh, seen droit la comme ni ma ko waxee sànq c'est la rémunération de la mission de euh, de service public du tey nag dinañ continuer suñu combat dégg nga pour que suñu entreprise de presse donc privée ñu daal di leen di rétablir dans leur droit li ñu yaakaar ci président de la république pour mu dimbali ñu pour ñaawteef yi nga xam ne moo am ren euh, avec les agissements du ministre de la culture et de la communication ñaawteef yooyu mu daal di don bañ a am. ñu jeexale ak xeex bi ni ñu ko yoxee ak ni ñu ko tëralee ñu seetlu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa diine yi daanaka dugguñu ci biir loolu la ki ko wax di Mamadou Yoxi Sall am ay téere yu mu bind ci wàllu diine moom nag wax na ni daal. bu sañoon ñu dugal ci ñi di ëttu euh, diine yi bu ko defee dinañu gën a mën a indi ay résultats ci xeex bi kàddu yooyu la yëkkati ci suñu émission euh, objection ak bay Oumar Gueye fi la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ci kanam tuuti ñu ñëw ak ci fàttali bi. Sénégal kon euh, amaat na euh, beneen fukkeelu nit ak euh, juróom-ñeent bu faatu ci jàngoro coronavirus bi ma nga faatu ca service ak urgence bu hôpital Aristide Dantec di soxna sa toll ci juróom fukki at ak ñett dëkk ca Sicap Liberté tey jii ci suba keneen itam faatu woon na mu tolloon ci juróom fukki at ak juróom ñu xool kon ci ñi ci faatu léegi ñi ngi ci fukk ak juróom-ñeent ci bisu dimanche ji juróom-ñaar fukk ak juróomi kaa yu bees dolleeku ci juróom juróomi kenn xamul. fu ñu ko jëlee dégg ngeen ci docteur Aloyse Waly Diouf ñii di waa adepte di kuréel bi toppatoo wàllu njàng mi ci daaxay nguur gi ak ñi tey liggéeyee ne ñi ngi xaarandi Macky Sall ci daje bi mu war a dajeek askan wi talaata euh, ci RTS bu 20h jotee ñi ngi koy xaar kon mu wax ci yan anam yéen la ñuy fas yéene ubbiwaate lekkool bi ndax faw ñu dëgëral kaaxaange euh, ñii di ndongo yi waaye itam euh, ñii di jàngalekat yi ba nga xamante ne duñu jóge ci lekkool ba ak feebar waa SDEPS e di kuréel gi ëmb. éditeur de presse yi ñoom kat nee nañu bëgg nañu président Macky Sall itam génne arrêté de répartition maanaam luy wone ci yan anam la ñu séddalee aide à la presse ndimbal bi ñuy jox euh, tutasukaay xibaar yi ndax ministre bi ñu ko dénk di ministre culture ak communication ni mu ko séddalee dafa xaw a mel ni séddale euh, bukki wala seddale et par parlo Ndeye Khady Diop moo nekkoon ci micro bi àndoon ak Pape Lay Dieng ci machine bi 18h Aïssatou Gueye Ba dina fi teew ci xibaar yi ci nasaraan ñu ngi leen di ñaanal bisu jàmm.